di la sargal di meree la président ay meeru bi ngay yegsee moom a téye mais du may faral di jóg di nuyu mais yow moom dinaa la nuyu di feddali nag sama kóllëre ak yow kóllëre gi nag dama koy ragal a wax ci ñeneen ñi ma ko séqal ndax li ma nekk opposition mais yow mun naa ko wax parce que ki ma koy ragal a wax moo ma boole woon ak yow mi président Macky Sall ba léegi soppeeku woo li ma la xamee woon rek noonu laa la xamee ba léegi yàqaloo ko dara aussi damay wax ni ñiy jaxase carte gi mooy ñi nga xam ne ngësam lee leen indaale mais ñi ñor tab bi du ñu jaxase dara yaa ngi ci loolu te loolu lañ lay seedeel di la di la gërëm di la indil ngërëm waa Bambey stade bi presque pare na gazon synthétique bi ñëw na tapis yi ñëw nañu ñu gaawan ko rek parce que xale yi dañu dañu suspendre ñoom seen ay nawetaan ni nañ ko muñ benn yoon ba stade bi pare moo tax ñun coowal euh, nawetaan yi fekkuñu fi te coowal nawetaan yooyu nee nañ nga arrêté pour ñu seetlu ñëpp d'accord nañ ci mais man xam naa ne neexu la parce que justement nawetaan boobu moo taxoon président boole ma ak yow ndax da nga doon candidat ma am sama candidat mu nekk sama premier ministre ni ma bàyyil sa candidat jàppale sama candidat ndax yàgg na nekk dictateur loola ba mu ba mu ko defee nga jàpp ma ma def la ma sama kilifa sant keroog ka nga doon concurrentiel jooy sax def na ko ndax dama ko jàppale woon dëgg mu nekk effectivement loo xam ni compétition bu seen la woon ci diggante Fatick ak Diourbel ku nekk am sa candidat di ko soutenir loolu la ñu jàpp ci yow jàpp itam ni dañ laa rax parce que esprit activité de vacance bi nga xam ne moom ngeen concevoir oon du lii du lii monsieur le ministre ASC la ñu wax ASC la ñu wax nga xam ni dafa am dafay charrier des principe positifs ASC la ñu wax pour le vivre ensemble pour le fair play pour le respect de l'autre ASC la ñu wax mu inclure nag la dimension culturelle mooy association sportive et culturelle ku wax culture nag di nga wax sensibilisation conscientisation ci valeurs yi nga xam ni moom moo ñu gën a cher te xam naa ne euh, loolu moom moo moom moo nekk ci yow te loolu moo tax nga am esprit de dépassement ba yu bëri dugguloo ci euh, mais li ko waral rek mooy passion bi nga xam ne dañ ko seetlu léegi ci sport bi te mu mel ni affaire intérêt moo tax ak des calculs mercantiles ba ci fédération bi monsieur le ministre dañ koy wax am am ñoo xam ni dugg nañ ci te niñ ci duggee du du esprit sportif rek euh, nawetaan yi aussi ñu déplorer le manque de planification il faut ñu planifier ko il faut que ñu planifier ko monsieur le ministre euh, monsieur le ministre ma am tam sama doom joo xam ni Bambey la dëkk musafa Kama mu nga Allemagne Moustapha Kama am na euh, benn ku ngeen baal ma ku dëggal boo xam ne wax na ko nee na dootul compétirati te mooy premier africain ci taekwondo di septième mondial mu nga Allemagne Bambey nag la dëkk suñu doom la xam nañ ko ak discipline am ak léppam parce que damay wax xale yi bu ñu commencé woon ci taekwondo wala arts martiaux yi discipline bi dinañ ko gën a am parce que ñooñu vraiment euh, discipline la yu yar monsieur le ministre ma dellu siwaat ci infrastructure yi bala maa ñaanal rayon yi ñëpp a ngi leen di ñaanal dama la waxoon fii ni la waxtu Lions yi di dem euh, te loolu kontaan naa ci bi nga ko xamee bi nga xamee ni looy def da ngay inclure ñëpp amul opposition amul pouvoir kooku encore une fois dama koy wax ku nekk da ngay wéet ñaanal leen wéetali ko ñaanal leen ndaxte Lions yi ñooy sunu sag nañ leen ñaanal yàlla nañu bokk benn esprit comme kii bi bi amoon ci fédération bi woo leen ku nekk nga def ko devant ses responsabilités comme que nee nañ dañu bëgg doxal rek moo tax ñu doon xëccoo fédération bi damaa bëgg a réussir mais wax dëgg yàlla bu dee réussir rek la bu équipe bi dee dem ku nekk la nga jàppoon na ko bàyyi mais fii loolu yàgg na fi keer 86 ñun gis nañ ay at ay ay ay euh, sélectionneur yu doon liggéey pour équipe bi bañ a gagné ndax tout pour sélectionneur bi leen yóbbu bañ a réussir loolu sénégalais dañu war a génn ci loolu dara mënuloo ne mooy sama teraanga maa ngi ciy xeex maa ngi koy xëccoo mais soo am rek yàq loolu du dëkk du yoon loolu du yëfu gor donc woo leen mettre leen devant leur responsabilité nañu soutenir équipe bi nañu wax luy defar mais du kenn ku ci nekk am nga sa chroniqueur bu lay waxal naka sudul noonu kenn ko ne parce que fii lañ dëkk nag sagum ñoom ñoo ko mën a xam sa sakkaa ñun ñi nga xam ne ci politique bi la ñu falu ci la ñu nekk xam nañ li ñuy doxal lépp kenn ku ci nekk xam nañ li ngay doxal muy sa intérêt kenn ku ci nekk xam nañ li nga xam ne yaa ngi koy def muy yàq loolu nag dañ ko war a bàyyi nañu booloo xëccoo amatul ki ñu élire nañ ko am nañu ko faraloon léegi farat amatul dara amatul benn Sénégal moo am buy yebal équipe am yàlla na gañ ak jàmm je vous remercie madame la présidente